du gulet quoi tam nañ ko macha allah ñaan yàlla jël ko rek wax sëñ Tuubaa xam nga ki ngay bëre. waaw moom vraiment. soo leen daj. non koy doog a gis. ndeysaan kaay kaay ñu dem ci beneen. da koy mu daanu tojal la ndeysaan tojal la daanu na jóg tojal la tojal la mbër nga bëre ci compétition bi ñëw bindu nekk fekk say naataangoo ngay bëre di bëre di bëre ba dem final loo yëg actuellement. a ah, sant yàlla rek xanaa di kontaan waaw tamit góor boo bëggee dara da ngay liggéey comprendre nga ay xel lañu maa ngi commencé di ay tournoi bu fekkee laa commencé maanaam Casamance laa dégg boobu laa jógee nii waaw. mën na première sortie. bi ñu wooree bu ñu depuis saison bu mu rek ba léegi. ba léegi yaa ngi doon génn. waaw maa ko. day bëri ak sama mag bi général. day bëri ak sama mag sama général. day bëri ak sama général. waaw. léegi nag loo ko bëgg a ak Serigne Ndiaye 2 bu Faas. Racramassal mu ngi toll ci final bi mbokk yi ñu ngi ci samedi 15 mai 2021 il est actuellement 0 heure 12 minutes fii ci stade bu Nianing. dox ci diggante Serigne Ndiaye numéro 2 ak Lacrymogène bu Bandiana Serigne Ndiaye jiital tànk ndijoor Lacrymogène jiital tànk càmmoñ ñoom ñaar ñu ngi bëre waaye Lacrymogène ndaanaan la ndax compétition bi ñu fa nekk ponkal ñëpp moo leen éliminé Serigne Ndiaye dox na ci koom lu mu nar da ko bëgg a jaay doole wala déet Lacrymogène du bàyyi Serigne Ndiaye 2 ak Lacrymogène bu Bandiana <laughs> Serigne Ndiaye yaa ngi bëre xale bu mën a bëre waaye ndeysaan ndeysaan da ko doon gàdd da ko doon gàdd mu daanu ndeysaan da ko doon gàdd ndeysaan da ko doon gàdd da ko doon gàdd ru ma ak Serigne Ndiaye 2 bu faas Serigne Ndiaye xëcc na ko ru ma bañ na mu ngi bañ mu ngi bañ Serigne Ndiaye koy xëcc ndeysaan ndeysaan ndeysaan jël na tànk ba mbot na ko daan na ko daan na ko daan na ko Serigne Ndiaye jël na compétition bi ci kaw Keur Adama. nu mu xew dafa ma teg loxo ma dindi fa mu dóor ko mu dal loolu kese la mais tey moo billaay walaay. Ah, sama loxo mais tey moo barke Sëñ Tuubaa. bi mu dalee yëg nga ni dal na. waaw loolu dal na wax dëgg yàlla dal na moom vraiment billaahi aw ma yéene boobu quoi ak ma jégalu bu baax billaahi. depuis avant koor ba léegi. bii mooy sa deuxième sortie boo xam ne sortie bu njëkk bi da nga koo perte arène nationale nga tey mu mel ni da ngaa jël si duma moom lan la. waaw mais dara sant yàlla ñun ay xale lañuy compétir mënuñu dara ñun da ngay ñëw tey xewle su ma ñëw kenn xewle waaw bu def bu demee nii yàlla na jël drapeau bi. di sant yàlla ba sant su sant samay coach nag ak ah, ñu ne àndal ñu seen fay maa ngi nuyu sama yaay bu baax ñu am yaay fa sama papa. non kooku kooku mënu wax moom li mu ne man dafa bari trop loolu mënu wax si ay médias ak Seydina Mohamed man dafa ñaan mu yàgg fi ak waa Jom